yow sa cas personnel ou seen cas parce que du yow kese lay recalé euh, au parrainage. Euh, xam nga euh, li nga xam ne laa ci bëgg wax mooy que xam nga malheureusement. Hmm. loolu aussi xëy na mu njaay du ci d'accord ak man mais dafa mel ni commission bi aussi dañuy. ci ci traitement dossier yi dañu naan ñii ñu ndaw lañ on regarde à fond parce que xëy na mooy loolu ñii ñu mag lañu parce que waruñu woon xaar ba Déthié Fall gis loolu pour man commission bi déjà waroon na ko constater bu ñuy indi seen liste mu wan leen tout de suite que liste bi dafa dafa irrecevable parce que xam naa ne ñun temps ça a été vérifié de manière rigoureuse xool ndax toppalante nañ góor ñi ak jigéen ñi respecté nañ ko parce que dafa nekk ay critères je parle aussi toujours ci contrôle mu si dafa nekk ay critères yoo xam ne ci la ñuy déterminer ndax liste bi recevable na wala wala wala recevable parce que am na ci yoo xam ne par exemple ay casier yoo xam ne dafa périmé mun nga ko fa bàyyi parce que après loi bi dina la permettre nga ñëwaat nga rectifier ko mais dafa am yoo xam ne loi la parité loi la xam nga yenn document administratif yi nga xam ne nag mooy étayer sa dossier xëy na loi bi après mun nañ la permettre ngay dem ak a ñëw di ko di ko dañ lay may sax benn délai euh, woo la nga ñëw taxaw ñu ne la ramp dal nañu ci municipal yi bi ñu demee ci municipal yi ay dossiers yoo xam ne xëy na dafa périmé wala lii carte d'identité bi euh, am na des na leer nga dem photocopier nga ñëwaat mais ci parité bi yooyu dañ ci rigoureuse gars yi dañ ci nekk loo xam ne duñ ci sax duñ caaxaane duñ ko caaxaane loolu benn la euh, ñaareel bi mooy que aussi malheureusement malheureusement ñun ñëpp du ñu intéressé wu ci kaawu élection yi lu dul dafa touché ñu mag ñi ñi ñuy wooyee ñu mag ñi coalition yu mag ñi parce que pour man élection mu njaay am na lu mu wax sànq lu am solo élection dafa dafa sérieuse élection nit ku dem góor góorgóorlu ànd ak ay nitam ba ñu ne dañuy bokk ci élection yi dafa nekk loo xam ne dafa sérieux amut ci ku ndaw parce que à la kii yi kese ni ñu koy waxee di sénégalais yi rek ñoom ñoo mën a décider finalement ñan kii moo mag wala kii moo ndaw mais dañuy commencer a priori d'emblée ci traitement yi rek bu dee ñii lañ leen recalé ñu tuddee leen ñu recalé xaw leen a tuutal la ñuy wax pertinence bi ou pas dañu tegee de côté kenn du ko xool mais bu laalee coalition yu mag yi ñëpp jub commencé ci wax di ci wax di loolu moo ñu dab xëy na li ñuy wax ni yëpp ci liste yi am na lu ñu téyee liste yi ñuy woyee liste yu ndaw yi mm. te xëy na ñoom boobu kenn taxawu ci kenn waxu ci jël defuñ ko defuñ ci sax defuñ ci sax kaa defuñ ci état kenn taxawu ci loolu tey moom moo ñu dab élection nag dafa loo xam ne dama ko jàpp te toujours yëpp maa ngi wax élection waxtaan la élection li yëpp boo ko gisee ñu yegg si ba fii parce que luñ waroon a waxtaanee lañ waxtaaneewul ni mu waree oote nañu ay waxtaan mais toujours da ngay gis ne presque dafa mel ni décision bu unilatérale rek mooy mujj pouvoir mooy mujj dégg rek ne nii laa doxalee te Sénégal bu dee dañ yegg si fi ñu yegg si ci politique maanaam apaisement bi ñu ci gis ni dafa am cosaan cosaan boobu kenn waxtaaneetu ko consensus la après décès wu maître Babacar Sèye assassinat wu maître Babacar Sèye 93 li xewoon ci jamono jooju remoulement bi comme ñu nekkoon ci condition yi ca la Abdou Diouf wootee woon waxtaan ñu dem ci ay code électoral bu consensuel lan la ñu indil moo ñu jural nit ñi fàtte nañ ko encre indélébile moo ñu jural isoloir mbañ gàcca moo ñu jural booy dem di woote ji doo sol sa couleur parti ndax nit ñi dañ faran dajee di ko xeex moo ñu jural moo ñu jural ba ñu mën a am alternance bu 2000 bu apaisé mhm. Abdou Diouf ba mu koy def woowul sax politiciens yi dafa bàyyi politiciens yi d' accord ci ay juristes d' accord ci ay universitaires ay borom xam-xam ñoom ñoo toog ñu tëgg code bi bañ ko tëggee ba pare xam nga Abdou bu opposition bi validé xam nga Abdou Diouf waxoon du ma ci dindi virgule loolu moo ñu indi loon élection yi doxee fa di apaiser di apaiser ba suñu démocratie ñëpp mun ko naw ba presse bi mun na ñëw à partir des années quatre-vingt-dix après euh, euh, euh, ci ci même mouvance boobu di mun di témoigner bureau de vote par bureau de mais tey jii dañuy gis ne de plus en plus consensus boobu dañ ko ci génne amatul waxtaan xam nga parenage bi buñ ko waxtaanee woon nañ ko waroon waxtaanee ca njëlbeen duñ toll fi ñu toll. parce que dégg naa ko fi expliqué am na ci dëkk yoo xam ne parce que parrainage mécanisme la jumtukaay la. Mhm. jumtukaay boo xam ne bu dee da nga am candidat yu bari ñu fexe ba segg ba ñu am candidat yu mun a raisonnable ñëpp a ci d' kenn contre ko.